foofu yàlla indaa tàggat ñeneen ñoo xam ni ñooy taxawaat nag waaw yuqimuuna daawatuhu ah def fas nag ak àdduna loolu lu am solo la kon yàlla ndekete am na ay soldaaram yoo xam ne ñoom ñooy jug rek nekkat ca yoon ba waaw xool leen ko ci tund tund tund diine yi rek foo dem rek am na mag bu fi nekkoon ci bés yàgg benn xale daal di pël la nag suñu borom xiirtal ko ci yoon bi rek moom it mu nekk ci rek bii côté bii bii côté bii bii côté bii mooy rijaal illaahi yuqiimuuna da'watahu moom la alxuraan di wax ni wala yansuruna allahu man yansuruhu nekkul ni nekkul yàlla ngay dimbali mais l'islam bi projet bi nga teg ci loxo parce que l'islam projet la yàlla ne ki si teg loxoom nee na dinaa la teg loxo fii teg loxo fañ jëm waaw loolu it lu am solo euh, su ma juumul nag su way libaas ñaŋ yi am na fu mu naan xaw ma liggéeyal yàlla moo gën a yey ñu sant ka waaw ñoo si kontaane am na daal fu mu koy expliquer nga xam ne foofu da ngay jàngat ni ñi nekk ci yoon bii góor góorlu di liggéeyal suñu borom te yàlla rek tax faw yàlla teg leen loxo fii teg leen loxo fa mu jëm mais tamit suñ ko jàngee comme ni ko Pape As waxee daf ñuy teg réflexion ñu tiit lii alerte la pour suñu ndaw ñi suñu suñuy doom suñuy doom parce que réseaux sociaux yi ak portable yi xale yi nga koy yor tout le temps fu mu mënti nekk gis ngeen tribunal gis ngeen réseaux sociaux yi ay xale yoo xam ni tëju nañ ci néeg def si mbirum mbirum mbirum saay-saay ñoom la ñu def sax conscient ñu xamuñ sax ñu ngi yàqulu lu rëy ñu jël leen yàbbal leen fa nga xam ne mooy tribunal mais quelque temps da leen di bàyyiwaat te loolu yëpp ay xeex la ay pexe la yoo xam ne ñoom ñoo ko fi teg bu ko defee nag duñ ko wax nii rek waaye daf ñuy permettre ñu delluwaat di càmbar suñu njaboot yi heure tëdd ngay xool sa doom fu mu nekk téléphone mi fi ah. parce que bu njëkk da nga daan jug di ko wër léegi jox ko téléphone. parce que boo ne du ko jox téléphone nit li nga koy tere ca lay jëm falaa taqrabaa haadihi sajda lañ ko waxoon waaye dem na ca nit moo dañ kumpa am na ñoo xam ne diit nañuy bañ diit tax nga xale yi bu njëkk ñun boo musaan dugg ci néegu mag mais doo ñemee toog ci kaw lal bi mais mag ñi xam nga lu la daan wax baaxul rek ñun baaxul nañ ci xamoon mais xale yi soo ko nee toog ci lalu mag baaxul xam nga lu mu leen laaj lan moo tax jaar ci poto làmp diggante poto làmp baaxul nga koy daw lan moo tax <laughs> laaj nam lépp dañ koy laaj te kooku ci leerul moo tax il faut communication entre parents ak doom muy leer léeg-léeg sa doom bu góor am na fu muy toll yow waajur bu góor oo ko naka sa waay yaa ngi tollu sa digg doole moytul àdduna demal di liggéey te jaamu yàlla te moytu nag kër gi it da nga am ay rakk yu góor ak rakk yu jigéen exemple nga war a doon guddi looy guddee te war a xëy dem liggéey fan nga demoon fan nga nangamoon parce que boo ceytuwul loolu fréquentation dafay influence doomu aadama mu dugg ci ay pexe yoo xam ne kenn du xam lan la kon pexe yi yaatu na nañu gën a càmbar suñu bopp waaye càmbar njaboot yi bay aas jërëjëf ci leeral boobu